Assalamualaikum semoga mbokk internet yi ñu nekk Habib Sow l'homme politique lay wax nga am une coalition gëm na ko ziar di am mbégte tey dalal bi nga ma dalal te fi nga ma dalalee sax moo ëpp solo fi nga ma dalalee fa laa juddoo fi laa yoroo ma koy sagoo ma koy sagoo ci anam bu nekk mu nekk koñ bi nga xam ne fi la ñu juddoo fi la ñu yoroo fi la ñu màggee. kon bi rek kon bi rek ça l'image de la commune mu mu nekk ci kon moo xam ne njaboot gi fi yow njaboot bu gëm seen bopp la njaboot boo xam lu ñu bëgg la njaboot boo xam lu ñu lu leen war si seen wareef si seen gox moo tax bi ma waxee te ma la interview ah daf may neex mën naa ko defee ci hôtel mën naa ko defee ci restaurant moo naa ko defee suñu biir kër ci benn salon mais du refléter image bi bi ñu war a wax tey si suñu commune moo tax ma indi fii bi nga xamante mooy Daaru Salaam bi tuddee ko Zimbabwe man la kay ko waxtaanee fii wàllum gox bi ci li ñuy ci li ñuy waaj a dëgmal muy élection locale yi ci janvier ci 23 janvier 2022 bi moo tax man la ñu ñëw fii ñu waxtaanee ko fii. waaw am

il y forcement forcément un vainqueur et des parce que ci dix candidats yëpp kenn rek moo ciy gagné ñi si ñëpp yàlla dogal li mu dogal ba pare bu ñu jógee ci lii man nañ ko rafetal ñu xam ne ñoo bokk ñoo ndey ñoo bokk bàyyi Sicap Liberté benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar na rafet loolu daal de lance un appel solennel ak tous les prétendants nañ ko defé ci jamm ci dal ak ci salam que le que au soir du 23 janvier yalla yalla jox ndam tam ci soxna yalla ko yalla may ndam tam war ko meuna may ndam ça de luñu dund la ak mom ça de luñu dund la mom je ne parle pas en tant que ndaw tam ci soxna bi wax wala ku bok ci mom dede je parle en tant que citoyen sigawa l'homme politique ak loo bi mooy wax waxuma waxu par parlo damay wax de 1996 jusqu'à nos jours, acte 2 de la décentralisation, ba acte 3 de la décentralisation, il a été toujours présent ci biir commune bi ci anam bu nekk des fois dama waxtaan ak Diatta wax ne le programme de Tamsir Sokhna se trouve à travers ses actions bi mu bi mu defoon loolu la ko yàlla sax di fayee nii da ngay jox sax di def sondage à travers si nit ñi woo nga wax mun la ah ma ne sama xel bàyyi naa ko ci Tamsir Sokhna sama xel ma ne lu tax ngeen bàyyi Tamsir Sokhna mu ne jëfam dafa jëfam dafa jiitu ay waxam des fois sax ba ci ñi muy di muy jàmmaloo sax dañ koy tooñ tam si soxna mënul wax tam si soxna tam si dafa dépassé wax xam nga mbir boo nekkee ci action dootal wax dafa nekk ci ay action des actions concrètes à travers les associations à travers le monde sportif je je dirais sax le monde sportif le monde culturel sur le plan sanitaire tam si soxna mi ngi ci sur le plan environnemental le cadre de vie tam si soxna mi ngi ci tam si soxna ci loolu ma lay wax yooyu yëpp mooy résumé programme candidat yi ma lay wax yëpp tam si soxna da leen ci jiitu ba pare. ci loolu nag je lance un appel à toute la population sigaboise mu nekk lu ñu gëm di ko wax di ko dund ma nañ bàyyi xel tam si sono ci jour électoral yi ñu jëm ci au soir du 23 janvier ñu jox ko suñu mairie bi parce que gëm nañ ni suñu mairie bi bañ ko joxee lañ ci namm ak lañ ci bëgg ci kàttanu yàlla borom yàlla ci loxoom mën na ko ko jaarle ñu am ci nam tam si sono yàlla dafa def ni dafa am ñu bëri ñu mu jëf ci commune bi mu nekk jëf yoo xam ne nit ñi kuy waxal tey yàlla tax xam ne Tamsir Sokhna a beaucoup fait pour les SICAP particulièrement di ci tatafaale sax ci wax ji di ci ñaax waa Liberté 4 bi xam ne fii laa yeewoo jugee fi yore fa ñu bàyyi xel Tamsir Sokhna bu ñu jum ci le choix bu ñu jumee rek ëllëg ci biir mën nañ ci am ay regret parce que tam si Sokhna dafa am taxawaay bu mu fi defee ci gëm askan wi ci taxawu askan wi ci suturaal askan bi ma sàmm du yëg ma demb du yëg kooku résumé na taxawaay Tamsir Sono ci commune bi surtout Liberté 4 bi nga xam ne da jox bopp des fois am na ñuy wax sax Tamsir Sono Liberté 4 la farat te déedéet Tamsir Sono mi ngi Liberté 1 Tamsir Sono mi ngi Liberté 2 Tamsir Sono mi ngi Liberté 3 Tamsir Sono mi ngi Liberté 4 Tamsir Sono si ngi Sono mi ngi Liberté 6 mi ngi Sono dafa dafa dafa tënk sikab bi ci ay jëfam programme am mu résumé na lépp li ma lay wax nii ci candidat yii yëpp et même les candidats je les ai sax en soutenir sax sant yu soxla pour au soir du 23 janvier <laughs> yàlla may ko ndam bi waaw loolu daal moo nekkoon wax ji as waaw di rafetlu lool lool lool lool lool sax jotaay bii ma defee ko nag fu ma neex xar-xaru Liberté 4 bi rek fu ma dégg ne war na ko mën a wane te lii gëm nañ ne ci kàttanu yàlla ba taxu soxna mënuñu ko saafaraal moo tax dee ma la kaa ma indi la fii sama fief ma koy tiitaloo nag fii mané fuma fumogum gëm waaw fuma gëm la fuma ma lo ma leen di tiitaloo ba ko ndi fi waaw di tap tap fi ko defé mu gëm ma neex moy dañ ko def seen moy ko leader ma di ko mu nekk xam daf daf ñu aspirer ci lu bari am ñu taxawo té loolu mu ñu taxawo té dañu gis image boobu tey ci ci Sokhna mo tax ñu bëgg jox dégg ko suñu mairie bi comme ko suñu kilifa gi señ bi dafa jox ndigal ni mu gëné loxam ci walum politique mais ci loolu mu génn nak ah amna ci relève relève yi nag gis nañ ni Tamsir Sokhna la moo tax au soir du 23 janvier di woo population Sicap Bois yëpp ñu dénk bi lañ ci namm ci lu baax ci jikko ci taxawaay ci wàllum faju ci wàllum njàngum xale yi ci wàllu bu nekk mu ñu si dimbali as loolu moo nekkoon kàddu gi di gërëm yoo tamit as maam as mun bi bi nga xam ne mi ngi taxaw askan bi ci lépp ci anam bu nekk mu nekk télévision xam télévision jàmm lay woote télévision solidarité lay woté télévision bi nga xamné défar unité solidarité pour nit ñi di mën ni dundu jamm la paix mom la Azimoon Az je vous remercie content na trop tay ci sa téway fi assalamu salaamaaleykum merci Az jërëjëf.